bari na ci yi. bari na ci gone yi. ñu ngeen dégg ñuy ñuy ci géej yooyu ñuy wax. ñu dara tegu ko. te dara tegu ko. loolu xalaat yi ci waar yow rek. yi waar yoo xam ne. dañ xalaat yi. nit ñi. nit ñi. teg seen doom yi. li ñuy teg seen doom yi. ci ay bëgg-bëgg. ci ay bëgg-bëgg. ak amoo jom ak amoo jom sa moroom yi nangama. sa morom yi nangama. am na yooyu. am na yooyu. boo ko dee tegu si goro. boo ko dee teg as bu demee ba ci dëkk ba. bu ba ci a jàll feneen. bëgg a jàll feneen. te xam ne fa mu ne. te xam ne fa mu ne. fa jógee. jógee. fa mu jëm. fa mu jëm. diggante bi yëpp la. diggante bi yëpp jaar ca. jaar ca. bàyyi na fii ci ci ci kër gi mu jógee. bàyyi na ci kër gi mu jógee. ci ay ay waajuram sax yi ko. ci ay waajuram yi jur. ak ci dëkkandoom. ak xoolkat yi. ak xoolkat yi. ak waxkat yi. ak waxkat yi. loo xam ne. loo xam ne. jaar ci danse bi. jaar ci danse bi. moo koy gënal wàccaat aéroport. moo koy gënal wàccaat aéroport bi dellu si kër gi. dellu si ci ñooñ. bari ci ñooñ. dafay am loo xam ne. dafay am loo xam ne. moo leen di poussé. moo leen di poussé. ba ñàkk seen ba ñàkk moom nag yaa wax dëgg sëñ bi léegi si la mën nga sëriñ. barke Seexal Xaadim Mbàkke mën nga sëriñ. maa la ko wax. ma bëgg nag yooyu. sëñ bi nee na ma bëgg nag yooyu. ngeen lànk. ngeen lànk yéen. du ay du dara. du dara. yooyu ñuy pression yooyu ñu ñu leen di teg ay ay ay ay di leen di leen di leen dëkkal ci fu ngeen ne amul leen jom ak élection yi ngeen di dëkk naan leen nangam ak nangam amu leen dara tëdd ba mu dee léegi lay yooyu yi leen yu dëkkal yëpp dara amul solo bu dara adduna rek la kon nag non kon nag bu ngeen demee yéen bu ngeen bu nu na ànd sunu xel ànd sunu sago ànd ak seen jom ci ngor te xam ne nit ñi nga xam ne nit ñi nga xam ne dañoo ëppal ñoo leen di teg yenn yenn yenn yenn yenn fitna yi. ñun ñi nga xam ne dañoo ëppoon ñoo leen di teg yenn fitna yi. waaye nit ñi nga xam ne. waaye nit ñi nga xam ne. ay nit piir lañu. ay nit piir lañu. te gëm nañ yàlla. te gëm nañ yàlla. gëm ay dogalam. gëm ay dogalam. xam nañ ne. xam nañ ne. nit. mënut hmm? a am lu ko yàlla jox. mënut a am lu ko yàlla jox. loolu doon doon jàmbaar. loolu doon doon doon jàmbaar. am na fi ñoo xam ne. li ñuy def bis bu ne. li ñuy def bis bu ne. li ñu nangu ci ay coono. li ñu nangu ci ay coono. li ñu nangu ci ay métit. li ñu nangu ci métit. jar na ay millions. jar na ay millions. kon bu bu bu bu bu bu ñëw. bu ñëw. yàlla la. yàlla la. waaye ñàkkoo jom. yàqu so. ñàkkoo ngor. ñàkkoo ngor. dogal bi yàlla ñëwagul. dogal bi yàlla moo dikkagul. dégg nañ ko. bu ngeen demee na ngeen ànd ak dal. bu nee na daal bu ñu demee ñun ñëpp nañ ànd ak dal. bu leen tooñ. bu leen tooñ. bu leen bu leen bu leen baadoole itam. bu nu baadoole bu nu tooñ bu nu baadoole. waaw ndax baadoole itam baaxul. ndax baadoole it baaxul. lu ne nga dugg ci. lu ne nga dugg ci. ñaaw wala xam lu ñaaw di tooñ jàmbur yi moom buñ ci bokk man de loolu wax ci rayam nga gis nit koo xam ne day denc milliard day denc milliard te boo dëkkoon ak moom weer ak moom weer doyoo ci moom na muy gonfaleeg. ndax na na muy soofeeg. na muy soofeeg. di la wan boppam. di la wan boppam. xam ne. di dem ba xam da ngay dem ba xam ne. damay wax wax nu gaañi. damay xam ne kii yi muy def nii. da ne kii yi muy def nii. yëfi balay sabure ne yëfi nga ka nag baaxul moom nga ka daal sëñ bi yàgg lu si mbaa sëñ ba defal nag mbaa nga ko waaw waaw waaye dama naan dama lay laaj ngir yàlla rek mbaa ngaa ma. jeex na. sëñ bi nekk ma ngaa yéen ñëpp dégg ngeen. lépp nag gis koo xam ne poos bi. gis koo xam ne kii poos bi. juróomi dërëm du ci nekk. juróomi dërëm nekk. waaye weer képp ngeen ko amoon. waaye weer képp ngeen ko amoon. dootoo doyal ci moom. ndax yiw gaag. tedd gaag. tedd gaag. noo bale gaag. noo bale gaag. neex wax. man man waxtaan wu neex. waxtaan wu neex wala mooy. waxtaan wu neex wala mooy. di wax loo xam ne. di wax loo xam ne. day tax nit ki nite. day tax nit ki nite. day tax nit ki jullite. day tax nit ki jullite. day tax nit ki mbaax baax. day tax nit ki baax. te la muy wax doon dëgg ci moom. te te la muy wax it doon dëgg ci moom. nga di ko nàmp ci moom. nga di ko nàmp ci moom. cee dox. di nga dox. muy neex ci yow. muy neex ci yow. ba ki la ko nàmpal. ba ki la ko nàmpal. doo ko doyal ci moom. doo ko doyal ci moom. ñaar ñooñu ñoo am ak ki nga xam ne nag. ak ki nga xam ne nag ñaar ñooñu moo am ak ki nga xam ne. day baax. day baax. yiw yiw. mel nii ma wax ba noppi. mel nii ma wax ba noppi. amul suuf nag. amul la. neex na kon nag. kon nag. na ngeen fexe am dara. na ngeen fexe am ne xaay am dara waaye na ngeen laltaayoo lii mu rafet jikko. baax baax. yiw yiw. woyof woyof. jiital yàlla. ne fii. xam ne fii. yàggul. yàggul. loo fi dund doy. loo fi am doy. loo fi am doy. fële nga xam. fële nga xam ne. boo fa xasee dem. boo fa xasee dem. abadan abadan. du fi jeex mukk. du fi jeex mukk. mat naa bàyyi xel. ne kon nag. loo di. li la koy may. li la koy may. mooy baax rek. mooy baax rek. yiw. gore. bëgg lislaam. bëgg lislaam. bëgg Sëriñ Tuubaa. di suturaal nit ñi. ci saw làmmiñ. doo jëw. doo toppale. fen. doo fen. doo xërëm. doo xërëm. ngir ngir am dara. ngir am dara. ba sa ba sa lépp set. ba sa lépp set. nga wut nag. loo tëddee. loolu mooy yoon. parce que borom